ñun ñëwuñu fii pour joxoñ wala dingat benn ethnie déjà vidéo bi nga xamante ni Aliou Dunguru Sow def na ko vidéo bi man tukulóor moo ma envoyé tukulóor bi ma ko envoyé moom sama waay la il fait partie du mouvement ba il a traduit au li nga xamante ni bokk Aliou Dunguru Sow def na ko tradition yi yónnee moo ko ne ma lii c'est très dangereux traduit ko man na ko lii lay wax mu ne ma waaw donc pour wax ni problème bi au du problème ethnique quoi pour mu leer ci ñun mu leer ci ñëpp ni kenn du fi Sénégal bi au fait la fa tuuti ci jàmbe ko quoi Macky Sall la fa tuuti trop ci jàmbe Sénégal bu fekkee yéen comprendre nga olof may bëgg a wax c'est-à-dire am lu fi mag ñi bàyyi muy muy kal ma sant Guèye benn tukulóor sant Diaw fu ñu fekk kenn mënuñu jaxase kii sant Fall kii sant nangam loolu mag ñi dañ ko créé parce que loolu moo muccal Sénégal ci xeexu ethnie yi ngay dégg ci neen réew yi xew ci Afrique Afrique bi ñun loolu dañ cee mucc donc déjà liñ dafa am loo xam nag ñun dañ ko bëgg wax te ñemewuñ ko cest mooy au fait Macky Sall yi ñoo ko faalewul mais su ko tukulóor yi faale woon kon taal na dëkk bi ci côté ethnie wane na ko bu yàgg parce que bu ñu waxantee dëgg rek même généraux yi nga xam ne tabb na leen moom bi sax ay tukulóor lañ

jalgati démocratie Sénégal ci jalgati bu doy waar calendrier républicain ba léegi kenn respecté wu ko xamuñu kañ lañ war a voté xamuñu naka lañu ñuy voté fichier électoral bi mu jàpp ko yàq ko ba nga xamante ni rek gis da nga yor sa quarante des ñu def ci non inscrit sans sa aval maanaam jeunesse bi yëpp kenn du voté cest à xañ nañu suñu droit de vote daf ñu privé suñu droit de vote xañ ñu social c'est-à-dire démocratie Sénégal la Macky Sall delloo ginnaaw ba mu yéesu léegi nag di ba max pour am troisième mandat boo xamante nii daf ko bëgg forcer mm-hmm. te loolu ñu nag moom ñu nag moom bëggee ji fer du ko amee fii su de su fekkee dafa weddi li ñuy wax na taxaw mu déclaré moom en tant que président de la République que moom day def troisième mandat mu xool du fanaan ci palais bi dañ koy wax fii ci kanamu écran yëpp ñu wax mu leer il faut mu xam ko ni li mu wax ñoom ba tax mu yabal ay nit dëgg la ci moom na génn mu déclaré moom day def troisième mandat du fanaan ci palais du fanaan ci palais bi ñun lañ taxaw ñun ñëpp le Sénégal wan ko ni ko ñun on est là ci dañ nekk ci république lañ nekk te état de droit dañ ko respecté Aliou Dunguru Sow li mu def dafa nekk loo xamante ne nii ñun Sénégal ah wax dëgg yàlla suñu wareef mooy jotaay bii dafa waral jotaay la buy waree ni jàmm Sénégal la parce que ñàkk koo mm. ñàkk koo wax mën naa indi fitna ñàkk koo wax mën naa indi jeex jaax ci xelu doomu aadama ci xelu sénégalais moo tax moo tax tey ñu def taxawaay bii ne bis bi ni ki tey dinañ taxaw ci lépp loo xamante ni dina gën a fësal jaay doole bi Macky Sall di doole ak ñàkk ak jalgati jalgati bi mu jalgati démocratie Sénégal ak ñàkk respect bi mu ñàkk respecté Sénégalais yi donc loolu tey dañ koy fësal ci anam yëpp mooy li ma wax sànq ci fichier électoral bi mooy sàccum suuf yi ñu nekkee mooy li ma wax ci ci ni mu jëlee ay quelques ngeen baal ma ci baal ay con laay wax parce que c'est pas des tukulóor ñooñu au fait c'est pas des loo xam ne laaj na ko ci wàllu terrain ci wàllu lépp ci wàllu terrain pour euh, communi euh, proximité communication nañ dem seeti parti politique yëpp leader parti politique yëpp nañ dem ci forum si frappe dugal nañ dugal nañ ñoom plainte au procureur mais xam nañu procureur du autosaisir parce que procureur n'est pas le procureur de la république procureur u Macky Sall la loolu xam nañ ko xaaruñu dara ci réaction yi mais c'est juste rek que ñun suñu devoir dañ koy def li tax ñu jóg nag frappe def na def na frappe ñoom dugal nañ seen seen seen seen plainte mais lii moo tax ñu jóg lii moo tax ñun ñu jóg en lii mooy ñun faalewuñu leen quoi lii mooy ñun lu ñu neex la ñuy def léegi nag ñun ndax dañu nekk Sénégal boo xamante ni daa am ñu ko moom am ñu ci bokk am ñu ci bokk ndax dañu nekk Sénégal boo xamante ni nit day taxaw di saaga askanu lëmb ba indi na naan génne leen ay jaasi ñu falaat Macky Sall ci troisième mandat boo xam ni Macky Sall ci boobu moo ko wax nul ne peut faire plus de deux mandats mu leer nañ maanaam ci olof kenn mënatul def ñaari mandat yu teglantoo yoon mayewu ko ci ñu voté ñëpp gis ko léegi nag ñun suñu kàddu day leer lépp lu mu aajowoo muy jàmm Sénégal pare nañ ci lépp lu mu aajoo yoo xam ñoom fitna lañ ci bëgg ñun pare nañ ci tamit mais jàmm la ñuy jiital d'abord dinañ ko dox dinañ ko wax dinañ ko jëf ma wax ko ni Assane Diouf dañ ko jàpp tëj ko ci kaso bi ci loo xamante ni moo gën a tuuti lii nii li li li li député bi def te dafa mi ngi bëgg a ñaaw parce que Penda Ba taxaw na fi saaga xeetu lëmb dara fekk ko si te dafay dem ba ñu toll 2020 nekk réew moo xam démocratie réewum diine 95 pour cent de musulmans de chrétiens réew bu am ay aada réew bu ñu respectante ñu nekk ci diggante tukkulóor nga tukkulóor beeg olof beeg nekk ci débat yi débat yooyu loolu dafa ñàkk fayda loolu loolu loolu dafa ñaaw ci koo xam dafa ni dañ ko fal démocratiquement par ay carte électeur donc loolu moo doon kàddu bi pour wax rek li ñu koy tëjee mooy euh, pour bañ a guddal trop li ñu koy tëjee mooy ñun actuellement ñu ngi lancé appel à tous les mouvements partis politiques yëpp tous les sénégalais tukkulóor soose joola ñëpp pour ñëw ñu ànd taxaw Macky Sall wan ko ne ko Sénégal mënu koo tas mënu koo jàmbe Sénégal du réew naafeq Sénégal bokk benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mu xam ko quoi parce que lii yëpp moom moo nekk si ginnaaw parce que moom yooyu lay yooyu xam taal ba pare wane woo sapeur ñoo di ko fay fay moom yooyu lay def ñun xam nañu moom il est derrière tout ça lépp pétrole beeg suuf yi ñuy sàcc lépp moom moo nekk si ginnaaw Macky Sall est responsable lu xew Sénégal Macky Sall moo responsable